temps baa ngi dem. acca marle ngi nii soq ngi nii te ñoom ñaar nag dañoo bokki tegtal kii indi na kol bu weex. soq indi na kol bu weex. marle ñu ngi jox la kàddu gi nga daal di nuyoog assistance bi nga xam ne ñoo nekk tey fii ci Sorano face to face diggante marle ak soq. soq bismillah marle def na kompati bu xonq. marle soq laxas ci loxo góos bi fas gu xonq. li nga ne dañoo bokk ay tektal lolou motax tax ma dina soq ma ngi maré ma ngi ni micro maré ma ngi ni ma bay la nga nuyoog askan bi lay sétane wa ma lay fay bu baax di wax onze billahi mina seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw biñu sante yalla yàlla su bi sante suñu ñaaru wajur sante suñu sëriñ sëñ bara eh di wa waa wa yeb di wa waa wa yeb di sant waa géejawaay yëpp di nuyu waa waaye bu baax di nuyu sama mboq mbër yi ma fekk waa di wax nag xam nga sa waay dañoo war a jëflante ko waa insha allah yéen ñaar ngeen war a bëree keroog am na lu ma la laajoon dama ni la xale bi dafa bokk ci xale yi nga xam ni dañ la doon suivre di ñaan yàlla pour daje yow yow tamit nga loon ko loolu ma ni la lan moo tax nga nangu loon ko ci ay qualité la wala xam nga ne xale bi il nga teel ko jël defal ko bagage wala lamb mo len bolé wala bokk na ci xalé yi nga xamni lamb euh, dafa wane ay preuve ci lamb lan mo tax nga nga jël ki nga xamni moy mooy wa waaw li tax ma jël ko moy pour bëre ak mom rek comprendre nga parce que jambar la champion la mais le 14 inshallah incha allahu rabi dinaa ko won nako ko li ko dugal si man nax nako bu nexe yalla le 14 ca takusan ban 14 ban 14 ban 14 la le 14 janvier 14 le 14 avril le 14 janvier Hein? le 14 janvier. ah le 14 janvier. nee ci lay jël xalé bi defal ko bagage fais ci fan nga ko tek? si gëm-gëm la ko tek, si suma bëre la ko tek. mais nga ko. mi ni taxaw. non mom moy li ma wax rek Ni mu tollu bu ko nexé na su leneen man parce que bokku na si ay dama gis yi nga seeni mbokk dañ leen lëng nga ñib mu ñibbi. waaw mais xam nga li may faral di wax moom luuram gisuma ko yaa may dégg bu baax mane ne ndax ma ne ndax yaa may dégg laa wax ma kii luuram gisuma ko. mais soq kaay di. parce que xam nga la moo tax. soq baam baam baam foofu sa baaraam. soq. ay ci Cheikh. mais soq ñu bàyyi la nga nuyoog. soq ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateur yi ak assistance bi soq. ñu bàyyi la nga nuyoo soq Sokh Aïcha Aïcha Sokh Sokh bismillah waa gaay avant tout dañuy wax onze billah bismillah ina wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul may ñaanalat suma yaay gudd fan ak wergu yaram baax a baax baax di sant wa pigine bu baax a baax baax gaan may lan ma tuuti rek pigiri day def effet dama gëmmentu japp len ci rek <laughs> wa gaay yi temps bi jàpp leen ci rek temps bi s'il vous plaît s'il vous plaît xam nga damaay pigiru te pigiri day def effet may lan ma ma yegal dama gëmmentu gaan <laughs> mais Sokh Sokh dama ni. Marley nee na Marley nee na moo ay ci luur yi looy tontu ci loolu. moom moo la gën a xam loolu. waa non xam nga moom Marley dafa ay ci luur mais ak i luuram xam nga dafa ñëw fekk xale bu am naqar am lu ko metti torop Marley mii dem ba ñëw. lu la naqar yi non defal ndànk rek. lu la naqar yi d'abord. damaa ñëw arène national waaw. waa Pikine gunge ma ci bis bu mag. waaw. ma ñàkk ko boobu ba léegi ma toog muy sa diggante ak franc may ma tuuti rek ah. boobu ba léegi ma toog sama ruk am lu ma naqari torop te xam naa ni barke alxuraan nit dafa may xool di ree sax ma xam ni ree bi muy ree du mbégte am na lu ko naqari ci biir xolam ci sook kii dem ba ñëw moom nee na moom mooy jël avance sook pour delloowaat ko foofu maar la ngaa juum dama lay duma dama lay daan amul problème déggoo ma de maa la dàq bëre maa la dàq bëre maa la ëpp sañ-sañ maa la ëpp fit. waaw may ma tuuti rek ma tuuti rek. bu arbitre bi ba génn suñu diggante boo arrièreul ma daan la jël bu ñëpp di coow lii man maa la ko wax. Eh, eh, eh, xëy na la. Cheikh Cheikh seetaan rek. Mar la waxaat ko Saala xam nga kii comme li ngeen di wax ak ni muy présenté woo comme ay soxu nii la toll soxu tollu nii man loolu gisuma ko comprendre nga. ki nu mu tollu bu ma neexoon mat mat waaw mais lolu moma intéressé wul. kon da nga yaakaar ni boy bi dafa nan dara. lolu mom la concerné. so mais en tout cas dal yaram mom bu xeyo mag rek juddu ba rafetul. sox deug li mu wax neena yaram bu gaawee mag juddu ba rafetul bu xëyee rek mag juddu ba rafetul. aji sox non non non yow wa keri ñi ci saal yi ngi lay sétane déedéet vas-y demal rek yow demal rek. waa gars yi waa gars yi. waa gars yi gars yi ngeen jàpp ci rek mu tontu bokk soq. jàpp leen ci rek. ayca soq soq ayca. dama ayca. yow. maanaam combat bi boo buggee dégg dëgg wax lu tuuti jëf lu bari laa ci indi. maanaam dama la bëgg xamal ñaari mbir nga xam ko. man damaa nekk relève bu Pikine yaakaar te dama ko waxoon du daan ak daanu moo may teree nekk champion si làmb déggoo li ma la dama ni la maa la mën maa la ëpp doole maa mën ku la mën. te bu la 14 barke Serigne dëgg day sóor 14 laa wax waxuma la ay wax nii sa bu waxul naxante yi de dama ne la dama ni la. kurul yow maa ko mën dama ndànk ma ma. ma doo dara kurul yow maa ko na loolu su la 14 laa wax. billaay wallaay su la 14 <laughs> dama lay jaay doole. daan la mu lay neex mu lay naqari. billaahi wallaahi amoo kattan. dégg nga dama ne la bu la 14 maa ko wax ñëpp a ngi dégg. dama lay jaay c'est que xam neex ci signature uh-huh. day wax ba nga foog ne bu ñëwee da lay rey mu ñëw mel ni du moom. man damaa bëgg li muy wax nii comme dafa ne day wax lu tuuti jëf lu bëri damaa bëgg mu wax lu eh. tuuti jëf lu bëri. Eh. bu la 14 eh. ma duma ko daan ko. kii man ak moom bokkuñu. xool ko ci bët. man bëree bi may bëree du bëre xale. du bëre pour ñii yàlla géejawaay dugg naa fa daan ñu la gën a nekk ndaanaan ñetti yoon. mooy kan. Pape moo la dàq bëre ñetti yoon Pape Mbaye da nga koo daan. Pape Mbaye. Pape Mbaye da nga koo daan. limal palmarès soog. Pape da nga koo daan. ndigal. Pape Mbaye da nga koo daan moo la dàq bëre. géejawaay daan naa seen. jërëjëf six mbëru géejawaay daan jërëjëf fii fi ma jaar si làmb fi ma jaar boo fa jaaroon du la léegi dañu bàyyi le la mën maa la xam nga lu tax janvier lay leer ginaaru kooku li nga munoo mën jërëjëf jërëjëf fii. jërëjëf sox may ko bu gërëm. après la mën maa ko mën loolu laa a. nee na nee na ginaaru kooku li laa nu ma gaaw a màgg moo tax ma bëri ko mais moom day pikiru. yaa may dégg. sama boy sama pikiru jërëjëf fii jërëjëf merci. dama lay jaay doole. billaahi maa ngi koy maa jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Marley su ma la jàpp nga xam ne lépp dëgg la jërëjëf fils am ñoo xam ne faa ñu sant nekk dañ la may nga sant rapidement rek ñu jël yeneen bëri yi damay sant waa Géejawaay yëpp ayca macha allah di jël sant